الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الفاتح الخاتم سيدنا محمد الناصر الهادي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 maa ngi leen di boolee ti juróomi baat yi ñu yàlla boole muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del siwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yow li ma sosoon ak yow ci julli tuddoon la lenn ci ay njariñam te lépp njariñam xajut ci wenn waxtaan mu bokkoon ke njariñ ya julli dana kafaara ay bàkkaar loo bari bari bàkkaar booy julli sa bakkaar yaa ngay lakk ba mel ni ñax mu ñu dugal ci safara na muy lakkee alquran wax na ko wa aqimi salaata tarafay nahaari wa sulufan min al layli inal xasanaati yuzhibna sayiaati waaye nag dalika zikra li zakirin xasanaat jooja nag lam ca namm mooy julli juróom yi sayiaat ya lam ca namm mooy bàkkaar yu ndaw yi képp koo xame ne yaa ngi fonk julli juróom yi di ko julli na ko yàlla santaane ànd ak toroxloog teewlu nga yëg nga ñàkk a yëg sa bakkaar yu ndaw yëpp yàlla jéggal na la ko waaye bàkkaar bu mag nag moom tuub rek mooy tax yàlla jéggal la ko bàkkaar bu mag te waxoon naa la kabaayir yi juróom-ñaar fukk mat nañ ko loola Ibnu Abbas wax am na ci beneen téere bu ngi tuddee al kabaayir bu téere bu ñaari xaaj la yalna yalla yok seigne sëñ Touré aw fan ak wér moñu ko baxé lim ci lu hepp juróom ñaat téméri bakkar yo xamné ne yu mag la su ko defee nag waaye bàkkaar yu mag yoyé bu ma ca mën a mom moom moom tuub rek moy tax yalla jéggal lako bakkar yu mag ya sacc ci la bokku fen ci la bokku njaalo ci la bokku jëw ci la bokku rambaga ci la bokku gorñi di len wax wax ju bon ci la bokku lekk xal li jàmbur yi ci neen ci la bokk ak trian ci la bokk lekk riba ak karta ci la bokk naan sàngara ca la bokk demeet yooya yëpp ca bàkkaar yu mag yàlla yooya moom bu la dabee tuubal tuub nag sëriñ tuubaa xaadimu rasul nee na balaa mën a wér mu amee melaw xalu safara xalu safara ku sob ba dëgg ca wallahi ku teub ba dugg ci tabid boobu safara dese nga benen tebit tebin wi nga dese nak moy iqlaaxu moy genn place ba ba ci tagu timit ku ci dugg dang ko reccu ana dama ala ma faata ñew waye timit bo ci xasse dugg xawma walay lakkat waye dunu dunu wi wa alla ya'uda ila tan fi ma baqiya min umrihi ñew nga door dabatal nak yalla passé lola bo xamee rek ala kulli hal tuub ga yalla nangu nako waye tuub ba pare sax di sik sakana yalla nangu nangut fala la fa bakar bàkkaar commencé timit kon ngok da fay kafara bàkkaar yu ndaw yi don te tuboko waye tubrek yu mag ye ya mom tub rek moko fi meuna a jëlee montagne ñoyam montagne bu xasse taxaw jëlal pik rek nga nga gor ko wala nga uti oto yooyu ñew rasé montagne ba waye nak dara mënu ko fa jëlee lool dul ko kooka mooy tuub te bu mag mom montagne beneen bi wax naa la alquran kon inal xasanaat yudhibna sayiat danaa la wax hadis buy tekki ne julli juróomi ku ko fonk rek sa bakkaar yu ndaw yàlla jéggal la ko doon te tuuboo ko yonentu bee wax ci hadis asalawaatul xams wal jumuatu ilal jumua kaffaratun lima baynahunna maa lam taxsal kabair kooku muslim moko ko andi mu ne daal julli juróom yi day kafaara bakkaar yu ndaw yi bo julle juma ba juma del siyaat nga julli ko bakkar yi nga fa dox yeb ci ndaw yalla jegal na la ko feek dikelo yu mag yu mag yi mom wax na la ko tuub rek mo ci man dara kon julli yonent bi mi ngi koy niraleeg ben dex wala ben piscine bu nek ci kenn ci buntu kër yi kenn ki ñun mu ne waaw ko yoro piscine am bët bu sen nga sangu ca yon ndax da nga tilim sahaba yi ne ko do tilim di mu ne a ah, kay kon nak kuy julli julli juróom yi di ko def ca waxtu ya mbooloo ma sàmm ko toroxlu ya na la wóor ne doo xam bàkkaar ndax tilim boo tilim diggante tusubaar ak tàkkusaan boo jullee tàkkusaan rek mu set diggante tàkkusaan ak timis boo jullee timis mu set timis ak gexe boo fa boo jullee gexe mu set timis ak gexe tamit ak fajar nga julli fajar tamit mu set kon nag araaytum law anna nahran bi baabi ahadikum yaxtasilu fiihi kulla yawmin xamsa maraat hal yabuqa min daranihi shay'un qalu la yabuqa min daranihi shay'un koko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moko ko wax mune ne manam maanaam benn wala piscine bu nekkoon kenn ci yéen ca buntu këram musangu bu seen mu sangu juróomi yoon ndax dana tilimati ñu ne ko déedéet mu ne kuy julli julli juróomi noonu la mel yaakaar naa nit ñi ñi gën a lu ñuy sangu ñaari yoon yaram nga set kuy sangu yoon do kon julli juróom yi dafay kafaara bàkkaar yi ba mu waxee loola nag ba xadis bay jeex mu ne fa kadalika mislu salawaatil xams yamhullaahu bihin al xataaya xadis bii ma wax la nag alquran dong nga ko gën a wér buxaari yoog muslim yëpp ñoo ko indi dañoo gën a wérle xadis ci ruwaat yi te loolu muttafaqun alayhi la ba tey ku mel ni solo nañ ca muslim ca sayihom ba mu indi hadis boo xam ne Ousmane Ibnul Affan ko déggee ci yonantu ba mu ne yonantu wax ne man de Ousmane ne man de dégg naa ci yonantu mu ne xamul benn nit koo xam ne julleeg farata dana ko fekkee mu rafetal njàpp la toroxlu matal rukkooya lu dul ba dana kafaara ko la ko jiitu woon ci ay bàkkaar feek indi hut bàkkaar bu mag kon nag moo tax Omar Ousmane ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min imriin taxduruhu salaatun maktubatun fa yuxsinu wuduaha wa xusuaha wa rukuaha illa kaanat kafaratan lima qablaha min adunub lii xadis la muslim moo ko andi su ko defee mu bokk ci xadis yi Usmaan ya kon xadis bu ngoog di tegtale da kuy topp julli di ko rafetal di ko matal sa bàkkaar ya yàlla jéggal la ko kon nag julli foor googu mu foor a tax yàlla digal nañu ko ci juróomi xanam digal nañu ne nañ ko taxawal moo tax mu ne wa aqimu salaata digal nañu ne nañ ko wattu moo tax mu ne xaafisu ala salawaati digal nañu ne nañ ko defee ca mbooloo ma moo tax mu ne war ko ma digal nañu nañ ko def ànd ak laab ak ndox suñu amee ngànt tiim moo tax mu ne ida qumtumo ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi yàlla da digal nañ nañ ko taxawee di ko toppatoo di ko wattu di ko sàmm bañ koo sàgganee waaye tamit nañ ko defee ca mbooloo moo tax mu ne war ko ma raakiin nañ ko def préparé ko njàpp te waxoon naa la njàpp ak sangu jana baag li ci aju lépp ci waxtaan yi passé yàlla mu baax mu bëri yërmande mii nag bam ñu digalee julli ci juróomi xanam yi nit ñaak seen dëgër bopp ga def nañu ñeenti xaaj xaaj bu njëkk ba ne yow yàlla yaa santaane julli ñun gëmuñ julli julli ñaareelu xaaj ba ne yow yàlla yaa julli gëm nañ julli waaye julli xaaj ba ne yow yàlla yaa julli gëm nañ julli ñi julli waaye ngisal rek Tahu nit ñe tax benen xaj ba nak na yow yalla ya santane julli ñun danañ julli ta nga tax julli ci nan ko bëgge waye duñ ko défé sax ñun niñ ko bëgge ñenti xaj yi yëpp kenn ku ci nek yalla wax na ak yow ba tabal ñett ya safara duggal kenn ka aljana xaj bu ñëk bi ne man gawma julli julli huma ñoña abu jahlin moy seen jitt kula mana jur ak fo mën bokku soo jullee tut rek gëmoo julli julli woo rek safara nga jëm yaag abi jëlin yéenay bokk benn safara moom mi alquran ne woon fala sadaqa wala sallaa soo lëggee nag yéen a ngi dëkk safara suñu tuddee saqar safara ay darakaat la bu la gën jege suuf gën laa tàng booba nag quatrième degré ba mooy saqar moom la alquran ne maa salakakum fii saqara ñu ne qaaloo lam naku min al musallin kon ku ne gaw julli julli woo ko mana Yakar bu yowmal qiyaame yaag abi lahab bay bokku fu ngeen dekkee abi jahlin yéenay bokku ben loosement ci safara place loosement bu ñuy tuddé manam sakar. kon cité yu ñu tuddé saqar ngeen di dëkk yalla ci yalla musal kon ndeke safara ko gis mu duggu fa ñetta ko fa duggal ku duggu safara boko ko ñak julli ben motax mu ne maanaam maa salakakum fi saqar ñu ne qaalu lam nakku min al musallin ñaareel ba mu ne walam nakku nutimul miskin mooy li la yàlla jox sédd la nga bañ ko séddale rombu néew ju doole yi ci say mbokk néew ju doole yi ju duwut sa mbokk mënoo leena jox ñam ñi lek mënoo leena dimbale yëkëti ay enveloppe di leen jox bo leggé da nga dem safara nutimul miskin ñettel ba dak wa kunna nakhudu ma al khaidin moy tok ci gara place yi mbaa tok ci sab sal mba tok ci say nit ñi wër la ngay xuus ci deru gorñi di leen yaq ñi la ñi la gën fouf gën la bax fouf nga leni xass di wax wax ju bon ci ñom bu wéñu ci dal dé bo safara ngay dem kon safara ku ci dem ñetti mo la fa yóbbu ñaka julli ñaka joxé ak talal sa làmmeñ wi di joxé joxé joxe làmmeñ mooy daal ñàkk julli ñaka joxé xaalis ak maanaam ñam yeeg ndimbal yi boole koog joxe sa làmmeñ yàlla dafa ñoo teeloo suñu ne nañ tëj suñ compte banque yi nañ tëj suñ compte banque yi làmmeñ yi te tijji suñ compte banque yi xalal yi di ko joxe loolu la bëgg tey nag li ëpp ci nit ñi tëj nañ seen compte banque yi duñ ca joxe duñ ca lekk duñ ca lele tijji nañ seen compte banque yi làmmeñ yi di xasteeka jëweeka yàq der ci ji jamono moom fa mel ni yak der nit ñi moy hegal garat nit ñi ñi ngi yakante ay der ci facebook yi ñi di yakante der yi ci internet yi ñi di yakante der yi di monter ay photo yu ñaaw di ci jël ay kilifa di leen cay monter ñi di yakante ay der di jël ay son di ko enregistrer kon ji jamono dal montage yi dafa kilo ci lo xamee ni nii ca dal dee te lu ca bari boko topé dara du ca deug yooyu yëpp nag day dugal ni safara rek kon waa safara ba leen laaj baleen yàlla laajee lu leen fi indi daf ne ko ñett yëf rek ñàkka a julli ak tëj bànkab alal bañ koo joxe ak tijji bànkab làmmeñ di ko joxe lii de moo ñu dugal safara amul leneen kon ku bëgg dem safara moytul ma ñett yi foo tollu del julli te yàlla tax nga koy rafetal foo toll koo tene dimbale ko te yàlla tax waaye foo toll tamit sa làmmeñ wi na ko ñoŋeel walis deru gor ñi kooy tudd ayib yaa ngi ayib yu ko gën a rëy mën naa xam yàlla la suturaal yàlla mi la suturaal nag nga doy loo loola sutura sa bañ a xawi suturaay gor ñi di wax wax ju bon di ko jëmee ci nit kon ñett ñi ñooy dugal nit safara ñooñu ñooy abi laab ak mbooloo xam ma ñaareelu xaaj bi ñu ne yow yàlla yaa santaane julli waaye ñun gëm nañ waaye julliwuñ gëm nañ ne nag julli baax na waaye ñun duñ ko def xalaatuñ ko sax kooku ku ko def yahood yi ñooy sa ñooy sa njiit ñoom ñi yàlla waxoon ne fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabahu shahawaati fa sawfa yalqawna xayyan mooy ñu baaxa fi nekkoon yahood yi ku leen gën a baax ci waxin amut ku leen gën a baax maam amut yaquba seen maam la yonentu yàlla yuusufa seen maam la isxaqa seen maam la kon nit ki nag bu baax lee maam mbaa mu baax lee baay te moom baaxut du ko jariñ dara wax dëgg yàlla du ko jëriñ dara soo baax lépp sëriñ te yow baaxoo du la jariñ dara soo baax lee ab yonentu te yow baaxoo du la jariñ dara ndax tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat mais ku maa kasabtum lu am solo lu ñu war a bàyyi xel la wala kum maa kasabtum waaye yàlla waxut ne xad xan laha maa kasabat la waaye nag wala kum maa kasabtum waaye nag ñun dañ fiy nekk baax le ay maam di ko tiitaroo jël sam maam bëgg koo def entreprise rek di ko dundee sama maam fi def nangam moo taalif téere nangam moo defoon nangam ak nangam karama yu nekk nga ko cay wax bay kàcc sax di ca dolli te yow buñ la laajee loo def dara sa def ak maam lu lay jëriñ nga nek fi timit di tuddu sa mbax ak bay lim fi def ci ay karama lim fi talif ci ay téré lim fi jangal ci ay nit lim fi tabax ci ay jakka lim fi formé ci ay dara buñ la laajee waaw yow nak sa bay gënaaw défé li lo def nga ne tus lu muy jëriñ lu muy jëriñ laha ma kasabat wala kum ma kasabtu yow lo def te yow mi bo fi nekkee di titaro sa baxi mam di titaro sa baxi bay di ko tiitaro ba kay de sa dom ñew mom lu muy tiitaro xanaa mamati mataram lay tiitaro waye yow du tiitaro yow bo fi amé sët du tiitaro maamam te yaay maamam amoo fi amo amo amoo tiitaro bu ñu mën tiitaro so amé dom du la tiitaro ndax di fi dara motax ñu bari ñi leen di jéggi rek far di egg ci mam ya bayyi far ñepp rek kon lola ñi ñepp bo leen baaxlee ta baxu du la jëriñ dara lola alquran wax su ko defé kon bu ñu yàlla baaxee ñi baxi mam yi ay baay yi ay sëriñ yi ay yonantu nañ góor góorgóorlu jéem a baaxee ke seen baax ga loolu rek moo ñu mën a jariñ waaye di tiitaroo seen mbaax ga rek bay kàcc di ca dolli sax bëgg koo def entreprise di ko dundee rek ak bëgg ñu fonkee la ko du la jëriñ tus kon yahood yi kenn gënu leen a baax maam yàqoobaay seen maam kenn gënu leen a baax baax maam yonentu yàlla yusufaay seen maam waaye nag dañoo parewutoon baax ci seen baax ga moo tax du leen jëriñ dara ëllëg safara lañ jëm moo tax alquran ne fa xalafa min baadihim xalfun xalfu foo ko déggee bi sukkooni laam rek mooy ku baax ku fi newoon waaye ki ko wuutu nexel ko fi tey ku bon la bakkanam la fi nexee àdduna la fi nexee daraja la fi nexee waaye nexee wut fi li fi bàyyeeg maam ya nexee woon kooku mooy xalfun bi sukkooni laam yi buy xalafun nag ñi fataa laam nga mooy kuutaay lu baax mooy koo xam ne la fi bàyyam nexee woon la fi nexee la maamam yi neexoon la fi nexe bu baayam dekki woon mbaa maamam wallahi du sensé du soppi jotaay banam toogee woon moo tax kon liñ foog ak li xam du benn ñu bëree bëri dañu foo ne ñuuxu sa maam ak ñuuxu sa baay mooy dimbale ko ca lam neexoon déedéet mbir mi newut foofa jege taxut a jege nit mën naa jege fekk sori na nit mën naa sori tamit fekk jege na bu sa baay sa maam yi ñëwee andi la ci place boo xamee ne nii wóor na la péng ne ñoom seen waajur ya juree wuñ leen woon foofa seen fàggoog seen góor góorlu moo leen fa andi da ngay fexe yow tamit nga góorgóorlu ba wut place boo xam ne fi ngay juree sa doom yi di leen fa yare leen fa màggee du wuuteeg fi la waajur yi juree woon ndax kon yow yokkoo dara te nag nit ki dafa war a yokk war a góor góorlu te ku góorgóorlu yàlla dimbale la kon euh, toogu rek di tiitaroo baax baaxu baay baaxu maam baaxu sëriñ ak jege amul benn njëriñ nit jege na fekk dafa sori ñaareel bi ñetteel bi ñeneen ba ñoo ñetteel ba ñoo ne yàlla yaa santaane julli gëm nañ julli ñu ngi julli nag waaye taxoo bu ñu nit ñi gisee daal ñu julli rafetal bu ñu kenn gisut nit ñi bàyyi julli ga mbaa ñu ñaawal ko loolu ak a bëri bëri na ñoo xam ne tey bu mbooloo amee ba nga jiital leen ñu jàng saar wu gudd faatiha ju rafet tajwid ba rafet maxaarij ba rafet rukoo ya mat sujud ya mat waye bo len buñu wété ñom kenn duñ julli nda buñ jullee tamit du rafet sa yu gatt lañu julli nangam ak nangam waye nak la nga leen jiital mbooloo ma bari yalla bu bari ay doomi soxna ñi wan ñun jang kat lañ di wane yu nek ñoña ngistar rek mom la alquran ne wa iza aqamu ila salati qamu nak lu tax na yurauna nasa waye wala yaskuruna ila qalilan ñoña nak moy munafiqina yi boo lëgee ñooy bokk dugg safara ca nag kal bi gën a suufe si yi gën a suufe la ñu dëkk muy darakul asfal ñu koy tuddee haawiyatu moo tax kon wa ma adraka ma ma ma haawiya ma haawiya mun a naarun kon nag loolu mooy ñooña mooy seen dëkkuwaay yal na yàlla musal ñu ca xaaj bu ñeenteel ba moo ca des mooy ñi nga xam ne nag gëm nañ julli danañ julli ànd ak rukooya mat danañ julli defé ko ci mbolo ma ci war ko ma raakiin danañ julli wattu ko ci hafizu ala salawati dañ ko taxawal taxawé ko ci wa salata dañ ko def hand ak lab ak ndokh bu nganta amé ñi lab ak tim ci ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq ah ñoña nak yonentu yalla muhammad mi ne jël naa julli muy li seddal sama xol moy seen jitt mom moma nak ak ñoom ñooy bokk dugg jana yu ñuy tuddee quartier bu ñuy tuddee firdawsi moo tax alquran ne walazina hum ala salatihim yuxaafizuun ulaayika humul waarisuun allazina yarisuuna al firdawsa hum fiha xaalidun kon ñeenti xaaj yaa ngoog yow mi may déglu yaa xam ñeenti xaaj yi ban nga ci soo bokkee ci ñi nga xam ne gëmuñ julli julliwuñ koo manti mbubbooti te nangu hoo mu sol la yëgal ne abu jahlin mooy sa mbubbu mom borom fala sadaqa wala salla boo liggéey ak moom maa salakakum fi saqara qalu lam nakku minal musallin so ne gëm naa julli way julli wuma ko man ni ab serign wala mam wala bay ta nanguwoo mu solla na yahudi ñoy sa mbubbu ci fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salata wattabu shahawati fa sawfa yalqawna ghayyan so fi nekkee di julli gem nga julli julli ngi sal rek ak tiitaro buñ la nga julli bu la kenn julli ko man di mbubbo te nango mu solla munafiqin ñoy sa mbubu mom ngay sol wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna allah ila qalilan ta innal munafiqina fi darakil al-asfali minan nar ta asfal moy hawiya kon xaj bango bo gëmé julli di julli nak diko rafetal diko sam diko taxawé andak lok matal ga na nga na yonentu yalla muhammad moy sa njit nangul musalla so legge yak mom yëpp aljana walladina hum ala salatihim yuxaafizuun ulaayka humul waarisuun allazina yarisuuna alfirdawsa hum fiha xaaliduun kon jullee ngoog ci juróomi anam yi ñu ko yàlla sante jullee ngoog ci ñeenti xaaj yi nit ñi def jullee ngoog kenn ku ne ci ñeenti xaaj yi fan mooy nekk ëllëg sa loosuma ëllëg wax naa la ko ñett ya ca safara kenn ka ca aljana yàlla nañu yàlla boole ca kenn ka te musal ñu ñett ya julli mi nak nañ ci góorgóorlu gannaaw buñ ci góorgóorloo ñi ñaax ci suñu njaboot yi ñi koy defé ca ñi koy def diko defé ca mbolo ma ca jakka ja war ko ma raakil la wax yonentu yalla ismaeil ko yalla tagge wa kana ya'muru ahlihi bis salati kon bo nekké borom kër ma ngi lay lay biir bo télé fajar gi sajabari sa jabar yi xeexal sa doom yi bu ngeen mënee ànd yéen ñëpp ngeen dem ca jàkka ja su ngeen ko mënul ña mën a dem nañ dem ña mënta dem jullee ca kër ga waaye julli ji yow kenn rek bàyyi jabar yaag doom ya ñuy sax ñuy nelaw haa boo lëggee de duñ dem safara bàyyi la aljana yaag ñoom yéenay bokk dem safara ndax kenn ku ne li ngay sàmm bu fanaanee xàll nga fanaan xàll dem wuti ko te yonent bi nee na yaay sàmm bi yàlla jàpp sardi ci sa njaboot gi kullukum raa wa kullukum masulun an raiyati te borom kër yi may déglu yéen a ngi nii ñu ci ëpp danaa njëkk a wax bu nekk ay ay goubi magasin wala ay bitik yak sa dom ya nek ca wala nga ubbi len ñi nek ca sa yoy xey da ngay ndor ak ñom ci sa auto ba ñi doo ko ci duggu ca wala nga xey ñi ndor ak ñom kenn ku ne yobbu sa auto ñi yor sen jakarta ya ñi yor sen velo ya waye nga xey bayi len ci biti ci bir kër gi ñi nelaw ñaari fan ñetti fan demuñ tol demuñ liggey ci magasin ya dekk bi yeb degg len ba nga nangu magasin ba jox ko keneen dang ko xas ba xas yaayam ro xam jom magasin bi maa ngi ko ubbi def ci 30 millions jox la ko bëgg nga man manal say rak nga nekk fi ànd ñoom di caaxaan di fo nekk fi nanguwoo leen a liggéey nangam ak nangam danga torox su ma dee rek nga torox kasaale ko ba xas yaayam ne ko sa yaay xam naa ne lii la fi war a mën a liggéey waaye ànd ak loolu lépp kat bu fajar jotee nga dem julli ji moom muy nelaw kenn du leen dégg yow ki may déglu nekk ci àll ba nekk ca caawa ga soo yoree doom këy war jëm yee yee yeewi sëll ya wala nga yeewi leen gannaaw bi nga rattee seen yaay boo ca àndut ak sa doom ya ñu jàppale la ca loola yow kenn rek nga dem ñu bàyyi la gétt ga ca sàmm ga bàyyi la ko ca ratt ma hee ku ne dana la dégg sa sa jabar yi ku ne dana la dégg sa doom yi waaye kay boo këyee soxna sa yenu yenu ingu ba ak doom ya topp la ngay ratt ñiy ratt suñ paree ngeen bokk jariñoo ñi yeewi sàmm ñi yeewu sàmmi ba sàmmi mbaa doom ya sàmmi bu nag ya réeree ngeen toppaxal la ba dem seeti leen waaye ànd ak loolu lépp kat yéen a bokk ca liggéey ba ca coono ba ca gétt gaak caawa ga la ca aju waaye kat waxtu julli jotee yow kenn yaay julli sa jabar yi sa doom yi buñ julliwut tamit kenn du leen dégg yow baykat bi may dégg yàlla bu yàlla ji nekk taw bu njëkk muy ceebu fekk na ndeysaanam yaa ngi yàkkamti pour war ji gerte ga ci taw bu njëkk bi sa doom ji naajee xeewu sang faswaak sa jabar ji naajee yeewu tàngal ndékki la dëkk bi yëpp dégg leen da nga leen xasa xasa xas ba xasaale seen yaay yi su ngeen torox yéen bon yéen bañ tàng yéen def nangam ak nangam su ko defee timit nag ah bu ñu àndeek yow nag sa xol sedd ca liggéey ba waaye bu fajar gi jotee kat yow kenn yaay xeew bàyyi leen ñi tëdd yi nelaw kenn du leen dégg kon li muy tekki mooy ne ndekee sàmm yu bëri yi yàlla sàmmaloo seen njaboot seen intérêt bopp moo leen ñor ba lu ca nar a manqué ñi kaas xuloo bu bu laajee xeex ñi xeex bu laajee saaga ñi saaga bu laajee coow ñi coow bu laajee fase ñi fase bu laajee génne ci kër gi ñi génne la kër gi waaye nag lu jëm ci wàllu yàlla ñorul leen luñ ca mën di sànq seen yoon nekkut ca loola mooy li bëri boroom kër yi may déglu yéen ak may déglu ñu bëri bu añ bi jotee sa waa kër gi bala ngaa ubbi bool bi ñëpp a teew jabar yi teew doom yi teew kuñ ne dafa gën dem ci bitig bi ñu ne xaar leen ko bala ngeen a ubbi waaw nag jàkkaay yàlla ji balañ koo ubbi yow kenn nga teew bu ñu teew nga ne ubbi leen ma dugg yow kenn nga nekk fa ñoom ñëwul foo ko teg sa soxna si bu toggee ñam wi tàng nga kaas léegi-léegi sax nga ne ko dugal ci sa loxo lii ku ko mën a lekk mu tàng mu mu saf kaani nga kaas mu mu maanaam mu saf xorom nga kaas walla xorom ca manki wala mu ëpp nga kaas waaye diina ja moom bu manqué sa yoon nekku ca kon daal la Seex Umarul Fuuti waxoon mooy dëgg li kulli qatilin naihatin yanahnuhu wa laysa mu diinil muhaymini naihu mune ko de ko ne am nga ko la joyal sa ba moy l'islam l'islam rek mo amul ku ko joyal ab dëjëm fuñ koy maltraiter borom keur ya taxaw sen yoon du ca ne fuñ koy maltraiter njiit ya taxaw sen yoon du ca ne buñ koy maltraiter borom domba tank ya taxaw kenn du ca wax ta nak buñ koy maltraiter ñe l'islam fal ba dara ya juñ am bañ fonk ne l'islam tax ñu ca bari sen yoon du ca ne waye nak ñoña ñepp ko ca laal bayam mu gaddu yat nga laal yaayam mu gaddu yat nga laal serignam mu gaddu yat waye ànd ak boo gàdd boo laalee lislaam seen yoon du ca ne da ngeen bàyyi rek dana torox waye du jaral kenn mu juk jaay bakkanam jeerañu ko ja kenn bo ca jugol sax di jaay sa bakkan bokk ak ñu wala yedd commencé la tuddal ay sik suñ ko xamut ñu commencé la kereel ay sik pour bëgg nit ñi bañ la kon deug deug dañoo febar yalla ñu mëna faj yalla ñu yalla fajal bopam yàlla soppaloo lislaam ñu jël cofeel googa suqatal ko ci doom yi suqatal ko ci soxna yi ñu ci bëri am nañ diine mais seen jabar yi xamuñ diine te nit ki boo amee diine sa jabar amul diine danga nga ko cee war a naab muy julli su loola jëriñut nga fase ko faseem yar faseem yar yi ñuy wax bokk na cel yi tax ñi di koy def kuy sànq àq yàlla boo nekkee nit ki muy sànq àq yàlla da nga ko war a fase faseem yar bu ca yaroo baax na bu ca yaruwut nga hat ko bu ca yaroo baax na bu ca yaruwut nak nga fase ko mu ñettel yoon bax da saw ju dox seen digënté yore jabar muy mesu nga joxé ca guru yore jabar muy xéssal nga joxé ca guru yore jabar muy emaayu nga joxé ca guru lalal ko nga yoré jabar mu tagal tagal guy bëgg laal asaman. nga kontan ci sa yoon nekkuti lii lépp nag da nga ko ko waroon a tere su jariñee baax na bu jëriñu nga fase ko faseem yar yore jabar du julli nga ne da fase ko bu jëriñut nga fase ko faseem yar yar ko ca bañ nga fase ko faseem yar loolu la alquran wax bam ne maanaam fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaaji'i wadribuhunna door a ñëw nusuus lañ ci ko wax su ngeen jigéen si ñoom ak ak nusuus rek nusuus nag baat bu sakkan la mën naa nekk dëngee sa digganteeg sa borom kër mën naa nekk dëngee sa digganteeg sa borom yooya bu amee rek boo demee ca mu fasiru na ya dañ cay boole xàq yàlla ji bu koy dan dang koo war a waar bu jëriñee baax na bu jëriñu nga fase ko seydi aliou harasim moo ko pratiqué bi ko cheikh na sharifatu di jigéen gu tedd askan baax ak baayam yaag maamam ya doy ko diineem daal manki lool ke julli yaag taxawaay ya muy waar waar mënu ca dara mu xëy rek fase ko cheikh na tidiane sherif ne ko ah ki mala mayon lu nga koy fase mu ne ko li annaha la tusalli bo de ca ifadatul ahmadiya titre bi li ngay fek rek mu li annaha la tusalli mais sabab bi lol la motax kon koy andak tamunu leena and ci yalla boye bo yàlla booye boo muy sa dom muy sa jarbat muy sa jabar muy say muy say xarit muy say mbokk and dal gi ca sax ta yalla gërëm ko moy and gu jëm ci yalla rek bu leen mën ta xam rek kenn ku nekk na ngeen kito fu way mëna dem dem ni ko doon sëñ Abdul Aziz di waxe su ko defé kon nak jawatina tay liñu febarlo am dom yaakar ko am dom mu commencé ubbe ko mëna gënd sa ko ciép mëna gënd xaram tobaski mëna yobbu baye ja makka wadna ci yalla bu nekkon dakaru ñew fekk la ci village ba mo la yobbu makka mbaa mu yóbbu yaaja makka mbaa mu jënd xaram tabaski mi mbaa mu jënd saako ceeb bi bu ñëwoon di nelaw nelaw nelaw ba 10 h mbaa mu nelaw ba midi julliwut suba bayam du ko ñëmé fëgg waxuma la yaayam ana diiné kon ki waron la yaakar yow nga ñak fayda bam far di ko yaakaar te nga yaakar yalla bam la ko joxagut mo la yore won bu yalla xëyoon faat ba kanam mu dé yalla lay yor waye rek yalla jox gëmé ko gëmeewoo ko yàlla dafa guddee ñëw dafay récupéré bu ko hé bayi ko mu nelaw lim sa ko ci ba tax waye bu dem bu joxé wuton dara dëkk bi dégg leen kon nit ñi li ci ëpp gëmuñ yàlla xooluwuñ yàlla caaxaan rek ak top seen bakkan moy li bëri li la neex ki la neex rek dagee jayante rek ku dajé rek tudum mbax ak diw ni mu baxé ni mu défé nangam ak nangam lu ci ëpp kàcci kese ka lay ci mbax bu woné gannaaw jëw la waye rek ragal ma sama gannaaw maagaar la sa gannaaw rek mo fi nek léegi mo yak conférence yi mo yak gamu yu bari mo yak jotaay yu bari dajé rek taggante buñu ñu gannaaw jëwante waxal ma lima bax waxal lima bax présenté sa yu dul jeex te andi fa nit ñi kon géew yu ñu maam yi fàkkaloon nak bayyi nañ ci gorlu yoon wañu xalalon nañ ci gorlu ñu jaar ci su ko fiñ bëgg yegg ñi man fa yegg buñ leen mënta dab timit fekk ñu ña nga tegu ca yoon wañ tegu woon su boobaa yàlla mën nañoo dimbalee ci seen barke ndax walla walladina amanu wattabaathum zuriyatuhum bi alxaq imaanin alxaqnaa bihim zuriyatihim waaye nag defoo dara yaakaar sa baax ak maam mbaa sa baax ak sëriñ lam xàlloon teguwoo ca yoon waa du la jariñ dara kon nañu góor góorgóorlu yàlla na yàlla dimbaleel ñu boppam tëdd nañu ci lislaam bëggloo ñu ko soppaloo ñu ko toppaloo ñu ko xam naa nag bu subaa ci waxtu wi ma topp ma ma sof ak yow li ma sosoon ak yow wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu